Aidara gis nga Fils de Katy naa ah, ko bu baax waaw balaa may wax si Fils de Katy mm. alhamdulilah bisimilah inna wali yàlla maa nuyu ñu fi teew ñëpp mm. waaw di nuyu sama adversaire Fils de Katy mm-hmm. di la nuyu yow di nuyu yof gi ma jóge mm. waaw maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq wasalaam mm-hmm. Fils de Katy ziar naa la waaw ah, delloo ziar maa ngi ziar ñu fi taxaw ñëpp maa leen di ziar xam nga di ziar promoteur bi Modou Baye Fall di ziar cameraman yi fi taxaw yëpp xamal li yombul tamit xamal li day dundal làmb di nuyu suñ grand frère yi fi nekk su mel ni ñoom mbay guy gi xam nga ak ñoom Emet Lacrose ñoom Double Thiatou Rebeuss ñi ngi nuyu ñëpp daal xam nga suñ ko xam ne tamit tudduñu la tamit nga xam ne dañoo juum xam nga di nuyu ba Bada di nuyu suñ njaaxum tamit di nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp yéen ñaar dangeen a ñëw te da a bokk siège bi ngeen toog jege si da ngeen a ñëw bokk siège bi ngeen toog di waxtaan yéen ñaar li ngeen doon waxante ci suuf lan la loo ko doon wax ak butéel bi nga takk ci loxo bi mbay guy gi de sànq nee na instant yi moom benn sëriñ seeg ñëpp dañuy jël congé lu waaye def sa moroom du jàll. non affaire moom xam nga rek yaa ma gën a xam xam ni mu fa demee li doon waxtaan xam nga nee naa ko toujours bàyyil ma daan la mooy loolu soo non jour bi ma non non la def moom xam na lool sax moom nangul na ma loolu la fay neex man maa koy def incha allah incha allah xam nga xale ak mag duñ benn nekk si yoon di dem su may moom mënu ma yàqal sama yoon hmm. incha allah yow ay kii dinaa la bàyyi nga daan dara dara saraxtu ngir ma bàyyi ko mu daan ma mais dama ko bañal loolu dama ko bañal loolu dama doon ñaan ngir yàlla pour ma bàyyi ko mu daan ma dama ko bañal loolu. est-ce que du ko def sarax ndongal daara mbaa mu jëlal boppam. danañ yalwaan mais fii du fi amee ñeex. Ah, est-ce que du tibbal boppam. moo fii mënu fi tibbal boppam de. fii lu wow koŋ la fiy fekk. parce que Serigne Saliou. xam nga waaye soxla ma ko xam. soxla ma ko xam ma li ma yor laa xam man. jege si kaw nga la kii hmm. ah, ah, man Yoff laa dëgg man manuma doon ragal. parce que Serigne Saliou. Yoff gu mu dëkk noonu. Hmm. moo tax mu nekk ragal. ragal xoolal li ma la wax nit ak yow mas na mas na yàbb nit bool dama faa dugg def ma loo xamante ni xarañ saar dama yaa may dégg moom mooy ñëw jël si revanche hmm. si moom lay gën a méte kii mënuma téye barki Serigne Touba Mbacké laamu ji nee naa la xalaat ñaax la xalaat ñàkk billaay walaay frip dip yàpp ma samay mbokk ar bu ne prip barki alxuraanu karim maa si kawam amul luy tee ma ñëw def li ma bëgg a def su neexee yàlla laajal ma ko ndax man maa yëpp samay mbook beneen moom yabul ay mbokkam laajal ma ko ndax man maa yab waa Yoff. mais dama am lu ma jaaxal bii mooy sa ñaata komba man bii mooy sama cinquième komba ñaata victoire. Euh, trois victoire benn défaite. trois victoire benn défaite waaw. bii mooy cinquième. mooy cinquième combat mooy doon mooy doon wax am na loo ma wax de da ne ma saa yi daal nëbb défaite bi daa mel la demee nag xama bi ko laajee nangu woon wax. kii dama kaa xam nee la kii dama kaa xam. dama barki alxuraanu karim kii du bëre at bu ne pili ko ne di lii man yàbbee ma noonu samay mbokk waa Bawol duñ ma. doo puus doo paas. doole xale doo paas. du mën ak yow barki Serigne Touba. jàppee di nga xam maax yow kuy xale wala. nee naa la man ak moom nañ teg suñu reliquat. na ko dal yow amoo xaalis. suñ bëree seen la si. déggoo ma ay amoo xaalis ak naa. man aw ma lu man aw ma loolu du ma si wax. ma dooli la si reliquat ngay wax Eh, yow tapet nga. barki Serigne Touba da nga may déglu dama ne la yow tapet nga Baye Fall. Ah, déglu ma da nga may déglu dama la wax jour bi. barki alxuraanu karim maa la mën. doo ma bëgg dama tee def ma a def yow doo tee. man ma téye si li ma bëgg a def. billaay wallaay talaay buñ sublee. Oh. kii buñ sublee du taxaw. ak ne xool ñu géewal ñu fii maax moom. la neexee kaay ñu géewal ñu. Serigne Saliou Mbacke. dama la la bu la neexee ah man damay Touba Mbacke. booy dama seen morom. toujours. nee naa lamb ji dip. mënu si dara ki mënu maa tee def li may def. déglu ma déglu ma wax la nee naa ko man damaa nekk si yoon. te damaa war a wane samay talaa pour ñëpp xam ko. talent yi nag si moom laa koy wane. si yow la ma ñëpp kii déggoo lu ma la barki daa la lamb eh, ji ki dax a bëre ah ki dax a bëre dax xeex ëpp fit yàlla ko suñ borom may ndam. ëpp doole barki alxuraan nga sa yaram bu bon bi buriñ bii nga ñëw fi di lépp am problème loolu lépp garaaw état yu garaaw eh, eh, buriñ la buriñ mooy mbëxër yooyu noonu kii barki Serigne Touba Mbacke su ma ko jabee su ma bëri moom cinq minutes ah. ah, la budiñ la ma ko jàppee mu xam ne la kii jaay taar la jaay taar nga yow benn wax bàyyi la déglu koy rek dama ne dafa am lu ma wax nee na ma ko judoo suuf yaroo suuf loolu dox ragal suuf kii ma ko jàppee barki alxuraan nga xam ne du mën ak moom billaay wax bàyyi su xel nee naa ko damaa jóge yoof te yow damaa yaakaar te njare damay yónni yaakamti ma xamul baat boobu de buñ bëree ba pare laa koy leeral. am na solo maa ngi lay jaajëfal bu baax bàyyi la nga woote ñu tàggoo ci wàllu mobilisation ndax promoteur bi tamit bu génnee xaalis ñëw ci noon gan ci làmm rafet na yéen bari ku ci nekk nga yee say mbokk ñëpp jóg ànd. wala mobilisation moom côté boobu moom ah côté boobu rek man su ma ñëwee su ma ñëwee kii alxuraanu karim nga xam ne fii sa kat yi ñëw na su ma ñëwee ba ànd ñoom Baye Bada ñu sama papa kat yi indi ma ah ñoom Zallo nekk sama ginnaaw ah booy maintenant yi gën waa Bawol gën ah barki alxuraan nga xam na kii du mën ak moom maa ngi woo nag ñëpp waaw di woo sama papa yi nekk kaaw maa lay woo Père Thion maa lay woo xama di woo maman Doosa Badiane maa lay woo man bëgguma ku ma may xaalis bëgguma dara leen rek laa bëgg nañ ma jëndal sama bolok yi loolu kese laa bëgg six laa bëgg nañ ma jëndal lépp bëgguma si làmb ji leneen xama di sant baara tamit maa ngi koy sant di nuyu booy Medina yëpp mafia Medina bi maa leen di sant du ma limb kenn su ma limbee damay jum di sant waa bool gépp booy yi ma yarandoo booy cag ñag maan booy yëpp maa ngi lay sant waa feraay ba xam nga di sant sama papa soog a door baj maa samba borom dimili baara sama ménageur maa ngi sant ñëpp di di nuyu tamit Modou Baye Fall moom lu rafet la def nii billaay wallaay waaw waaw ñu ngi lay bëggee xanaa di doolu sant rek di ko ñaanal jàmm jour si xam nga yàlla may ndam si kawam quoi parce que ñu tamit ay jaam lan rek dañuy ngir yàlla may ñu ndam di leen si def le minimum incha allah yàlla may ñu si kaw Euh, gan gi du ma woo sax turam gan gi laa koy tuddee ndax nawloo ma ko jour bi lay xam ne nawloo ma ko waaw di sant waa Yoff gépp di sant ñi ma àndal Bablaye Zo euh, euh, Abdou Pouy Ablaye Diouf Sarr ñu ngi koy sant di ko si si làmb ji mu ñëw jàpp si mer na koy xam nga yow waa Yoff gépp nañ ñëw jàppale seen doom parce que man seen doom laa su ma jógee Yoff gépp ay jog waaw kon na ñëw jàppale seen doom ñu daan gan gi si gaawaay jaajëf am na solo Fadam kaay président Gora kaay Mor Jamaïcain kaay leen